Babacar moo ñu defal ñaan di rafetlu aussi ci seede yi ñu seede ci liggéey bu muy def ci ndaw dëkk bi di nuyu mbooleem notable yi fi nekk di nuyu jigéen ñi ñi nga xam ne ñu ngi dajeek ñoom ci taliba ñu tertu ñu tertu bu rafet jigéen ñi nag faw ñu bare leen loxo ci nuyoo yi ndax mobilisation bi ngeen def lamp yi ngeen génnee lampe tempête yi lampe torche yi yooyu yëpp defu leen ko ngir seen bopp kese da ngeen ko defal xale yu góor yi defal ko notable yi defal ko xale yu ndaw yi defal ko seeni bopp waaye jigéen ñi lépp luy naqar ci dëkk ak réew ñoom ñoo koy njëkk a joytu ñoom ñoo ciy gën a mobiliser wu donc ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu teeru bu ngeen ñu teeru di nuyu également jeunes yi di nuyu jeunes yi mooy ñoom ñooy avenir réew mi donc léeg-léeg bu ñëwee ci manifestation yu jeunes yi duñu xaw a mobiliser wu trop waaye lu ñuy def li war nañ ko war nañ ko teewee seet ndax lu ñuy doxalee noonu la luñ ci war a rectifier ñu xool parce que li ñuy jéego yu ñuy jéem a def yëpp ngir ñoom la c'est l'avenir du pays di nuyu aussi responsable APR yu Kër Yaa Xam Sëriñ Ndakaaru Momar Marème Ndiaye ñu tuddee Momar Marème moom ku xam senegal ñu mel ni xam Dakaaru ñu mel ni Antou Samba mi di nitu Yoff Ngor Antou mi wax léegi ci mbirum électricité bi mbokki Ngor la donc moom xam na Momar Marème mooy kan di nuyu ki wax léegi Aline Top di xam ne ñoom ñu mel ni ñoom ñoo tax APR doon APR bu président Macky Sall toogee pale gannaaw yàlla ak liggéey bu mu def moom it dugg ci dëkk bi dugg ci réew yi gox-goxaan yi ñuy jéem a topp ci tànkam tey ñu mel ni mam Ali ak ñu mel ni Oulé Diop ak Moussa Ndiaye bi doon wax ñoom ñoo tax APR am doole président tey ginnaaw yàlla mu nekk pale mu di doxal président nag teg fi programme bu am solo di programme Sénégal émergent ci biir programme boobu mu ràññee ci ginnaaw tournée yi mu doon def ci biir réew mi xam ne que électricité bi ak ndox mi ak pist rurale yeeg piste yi ngeen di wax léegi nii mooy tawat yuy gën a fës ci tawatu doomu aadama yi dëkk ci réew mi moo tax mu tax teg programme am pàcc bu am solo bu mu ci jagleel électricité naa ci ñëwaat léegi mais am pàcc yu mu ci jagleel aussi ndox mi ak tali yi moo tax sax ba liggéey bi xawee yéex tuuti mu def programme spécial bu ñuy wax programme d'urgence de développement communautaire yoo xam ne ñett yi la moo ko moo ko lal muy mbirum ndox mi mbirum courant bi mbirum euh, piste rurale yi ak oyofal liggéeyu jigéen ñi mooy wut ay moto euh, ay machine décortiqueuse ay moissonneuse batteuse ay moulin à mille mooy programme bi ngeen di dégg muy PUDC nga xam ne lance nañ ko te am na dëkk yu bëri yoo xam ne ñu ngi commencé gis résultat yi fi ñu toll nii donc problème mu tawatu ndox mi dégg naa ko dinaa ci wax ak sa dinaa ci wax ak sëñ Mansour Faye mi nga xam ne moom moo yor problème mu ndox mi problème mu éli euh, piste yi tamit naa ci wax ak ñi ma ko war a waxal mais buñ fi ñëwee tey jii nii ngeen teeru ñu dalal ñu ci teeru bu am solo bi. notable yëpp génn ràññe naa ci ku ñu tuddee Baye Maxa ñu ne moom bu ngeen ko gisee rek xam leen ni li xew ñor na ñëpp ci dëkk bi bu ngeen génnee ci génn bu mel noonu ci bés bu mel nii nga xam ne génn ci ñu mel ni ñoom ñu ngi toog ci seen i der di wirdu wala di jaamu yàlla bu ñu génnee dafa fekk ñoom lu ñuy dox ñor na leen mais ñu it bu ñu bàyyee fale ñu jóge ñu ba fii ci dëkk bu mel nii ci ndigalu président de la république dafa fekk lu ñuy dox ñor nañu te li ñuy dox mbirum électricité bi bokk na ci ba ñuy ñëw maa ngi woon effectivement directeur général ASER ASER war ngeen ko miin moom mooy agence sénégalaise électrification rurale moom moo yor mbirum électricité bi ci dëkk yu mel ni Kër Yaxam donc dama ni man duma ñëw di wax moom moo war a wax parce que moo yor liggéey bi te li mu wax def naa ni dégg ngeen ko leer na léegi problème mu boppam la maak moom ak directeur de cabinet bi fi teew bu ñu demee saa yu ne dinañ ko laaj mbiru kër yaa xam fan nga ci toll parce que kat ay gor lañ ko digaaleel te ci ay kanamu gor la jël engagement donc monsieur le directeur général à partir de d'aujourd'hui vous avez de sérieux problèmes parce que vous avez pas kër yaa xam mais moi-même derrière vous donc loolu lañu amoon li ci wax daf naa ni wax ji lu mu gàtt gàtt lu ëppoon solo wax nañ ko gannaaw nag vraiment kontaan trop ci ñu fii ak mobilisation bi ngeen def ànd ak suñu rakk suñu mbokk suñu xarit Maley Diop yàgg naa turu kër yaa xam miin naa ko lool daan donte ni am na yeneen dëkk sax yoo xam ne. su dee nañ leen kër yaa xam loolu il ñu leeral ko pourquoi yaa xam bari ay kër yaa xam waaye kër yaa xam gii nii buñ ko miinee aussi bokk nañu tax ñu miin ko Maley Diop mii di ko nuyu di ko gërëm di nuyu ñoom madame Seck ñoom Alassane Diouf ñoom Mamadou Thiaw ku lim Dioum mboolem responsable yi fi nekk waa APR ñoom Gabriel ñëpp ñi fi nekk Abdou Ndiaye euh, Ablaye Guèye dama doon bañ mooy ku lim jum bu ñu demee demetee feneen moom même bu ma leen limul xam leen ni yéen Abdou Ndiaye ak ñoom Ablaye Guèye ñoom Alassane ñoo ñëpp ñu ngi ci nu bopp dañu gis ci seen bopp ci nuyoo gi bu ñu waxee rek waxal nañ ñeen ñoom ñëpp di rafetlu surtout taxawaayu madame madame Seck li mu waxee xam nañu ni lu lu ko ñor la ñun amuñu lu dul Sénégal suñu président lu mu wax guddeeg bëccëg mooy da ngeen war a dem fekki nit ñi fi ñu nekk. waxanteeg ñoom saafonteeg ñoom wan leen lu ñuy liggéey donc Sénégal jaral nañu guddeeg bëccëg ñuy dox muy fet muy naaj mu tàng bu ñu sañoon ñun euh, xanaa ñoom Mamadou Thiaw ñoo programme ay pause déjeuner waaye ñun bu ñu duggee programme yi dañuy dem rek amatul añ amatul reer ba ba yu ñu dajeeg mbokk yëpp pare donc ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm surtout notable yi